Le ton est donné, Dame lance Diapo Yerum Askanwi, un mouvement de soutien politique au candidat de Beno Bokoyakar Bakissal. Devant une pile de sympathisants et de militants apéristes acquis à sa cause, à côté des leaders locaux, tous ont vite salué le pari de l'organisation et l'initiative de Dame Le ministre Omar Gueye, coordonnateur de l'APR départemental, en premier. Excellence, M. le président de la République, dafa liggéey liggéey bu am solo bi ci njëkk mooy la transformation structurelle de l'économie vers une croissance inclusive maanaam soppali suñu économie ba teg ko ci loo xam ni day indi yokkute boo xam ni ñëpp a koy séddoo ñaareel mu indi le capital Nous avons bi gouvernance institution paix et sécurité Madame nu ñuy dans dëkk gouvernance am ñett yooyu fu ne dafa def lu bare bare loo xam ni nañu commencé heure bii ba heure bii ñëwaat suba te ñu eggale dama ciy jël quelques exemples rek ndax mu président Macky Sall benn bi mooy énergie courant courant bu amul ñu mën waxante gisante bu amul tailleur biar yor machine am di ñaw du mën bu amul ku feebar warna opere opéré hôpital baare day taali musiba mën na am courant bu amul usine yi du dox courant bu amul yow mi yor sa téléphone doo mën a woote ak doo ko déchargé doo ko mën a chargé courant énergie moo yor ñun ñëpp ñu ngi ndax nag fàtte xaju fi 2011 xuyu kamat xuyu kamat télé bar ñi def doon jooy quai de pêche bar ñi mosul am quai de pêche Senghor jaar na fi amu leen de pêche Puis ce fut le ballet des responsables de Beno Bokoyakar Barni d'approuver l'action militante posée par Dame Hassan Mansoumbeg de la CCR départementale livre ses impressions en appelant à l'unité. Nous avons gagné toutes les élections à Mais, nous avons des élections yoo xam ne Macky Sall daf ko fonk fonk xam ne bakkanam la ci teg tey amuñu problème xëccoo amu fi mais nous voulons que Macky Sall gagne benn laquette moo fa am ma dem ba ma sàmp ñëpp ñoo bokk benn laquette bu ñuy sotti donc man am naa yaakaar ne incha

une unité qui semble. manquer dans les rangs de la PR avec deux comités électoraux en vue. Le maire Gay Ahmed Sek est allié d'une part et sa première adjointe Ouaragane Sek de l'autre. La néo-présidente du parti Natal Sénégal de lever un coin de voile sur ses rapports avec le président Macky Sall que certaines voix autorisées, dit-elle, tapis dans l'ombre, tentent de griser pour avoir créé ce parti léegi Macky Sall man mënuma ka fay législative yi dañu am suñu liste yaa leen wax lu tax am liste ñepp dem nañ ne war a gaa ne dax contre Macky Sall lu am liste dañu gis ne les écologistes bokku ñu si liste yi ñu ne Théo yaa si jiitu maa waroon nekk numéro 2 mais xam nga affaire politique toujours boo am ay njuuj njaaj ak corruption mais Théo ba ek fale dañu toog nekk ñun président Macky Sall ñu àndal parce que ñun Macky 2012 dañu bokkoon man du ma duma du duma fenkat du ma ko dul wax nu mu dul noonu yéen ma loo diggee def ko yéen a ko wax Macky Sall lu mu diggee def ko.

président Macky Sall da lay électrifier côté li nga xamantene mu ngi ci biir Sénégal bo tax pays DC am solo pays DC également permettre na plus de 500 000 Sénégalais yi les xamantene de dem xëy ñu am ndox léegi dañuy xëy ubbi lu ñu leen doon sax. face caméra. te loolu amul woon te 500 000 xam ngeen mooy ñaar 500 000 habitants mooy quasiment le département de Bikini loolu président Macky Sall ci wàllu programme bu jëlaat DER li ñuy woowee DER mooy direction à l'entrepreneuriat rapide bi bi ci waxtaan président jël 30 milliards de dégg na ci kay de pêche bi dërëm mu bari dugg ci président Macky Sall moo décidé mu construire six quais de pêche mu tànn bari ñi ci dëkk yi nga xamante ne war nañ am téléphone donc bu ñu a ñu caaxaanee waxi la ngeen wax ak nit ñi bii timmee fii ba kenn lëndëmal seen xel mbir mi tax leer juróomi candidat yi wax jogoo Sénégal juróom yooyu nag ki ci tudda Macky Sall marron bi am fas ci Le Seydou Diouf, Boubacar Ba du PPC embouche la même trompette. Pour lui, Macky Sall est le meilleur choix pour Bagné en raison de ses réalisations dans le pays. E. président. Le chargé des élections du comité électoral dirigé par Aboussek Morougaïsek n'a de cesse, lui, de faire des appels du pied sur une union des leaders à mal de se concrétiser. Mal okay, face aux caméras, s'il te plaît. c'est important. Donc, il faudrait que nous gagnions avec la manière.

pour ne président jërëjëf pour le quai de pêche pour ne président jërëjëf pour le pôle urbain pour ne le président jërëjëf ci yërëm li nga xam ne yërëm nga ko jabot loolu mooy li nga xam ni moom la ñuy joué vingt 24 février bii ñëw ma gëm ni nag ma gëm ni nag le seul président may ma may ma ma gëm ni ma projet bii gën a rëy ci barke bi état musul def Bargny projet bu gëna a rëy pôle urbain suñu sër wax na ko ñun nak ay gor lañu ku ñu defal ñu ne la jërëjëf ma bëggoon ku nekk fii nga def ko muy sa mission ci koñ yi ci kër yi ci nekk yi ñu wax ak ñépp pour que le 24 février inshallah ñu mën a dégg wiiw à 80 ici à Bargny. dañu war a xam nag ni fii nit ki ki lay jàppale rek ngay jàppale dama bëgg nag président buy xool résultat yi mu ne ni ñi ma ji KDPES ñu fay ma lii dinaa am lu ma ci yokk te gëm naa ne incha allah le Le clou de l'événement, c'est le discours de Dame Diop. Il a étalé, en clôturant cette rencontre, une panoplie de raisons socio-économiques et infrastructurelles favorables à Barnier pour réélire le candidat Macky Sall qu'il considère comme le président de la continuité. Raison pour laquelle il a établi ce mouvement de soutien dénommé Yirem Askanui Falap Macky Sall. man nag maa ngi gërëm sama léegi Ndeye Coumba Seck dafa dem Ndeye Coumba Seck maa ngi koy gërëm Ndeye Coumba Seck li ma koy gërëmee ah, dafa am fulla man bu may dem si bureau de vote yi yàlla xam na ne fajar Ndeye Coumba Seck day takku falaa koy fekk moo jigéen ju mat góor gisaal kaas dama na la jour élection lenn ak ragal sa la tooñ yàlla ab ragal du am wërsëg dama na la bu nu caaxaan bu nu caaxaan élection yi ba gars yi du ko yaaxal dama ne fajar 5 heures du matin toog leen si biro yi nu wotal président Macky Sall mu gañ loolu amoon si la may wax merci beaucoup. Dame en réunissant sur ce présidium tous les responsables locaux de Beno Bokoyakar pour lancer son mouvement politique de soutien au candidat Macky Sall attend de ses compères de Beno Bokoyakar une unité, une sorte de task force qui donnera à Macky Sall une victoire éclatante au soir du 24 février Kijk, kaay kijk ñëwal kaay Mbow Galla ñëwal xoolal may ma arrêté may ma ma